la dégg surtout RFM TFM L'Obs ñoo def article def interview nga dégg waa ji di wax waa ji présenté wu ne waaw euh, je suis le directeur de libertés publiques je m'appelle Ahmed Fadel Kane ginnaaw audience bi ministre de l'intérieur accordé loon Jamra bi doon naqarlu récépissé yi ñu jox boroom ñaari tur yi ñu ngi yëgal askan yu ne jot nañu ndigal pour def enquête ba xam ku leen ko jox ak lu tax ngeen jox ñu kooku kooku du ndam ci nguuru Macky Sall la waaw léegi nag lu waay gàtt gàtt xel xam ne amul benn chef d'état bu fees bëtu jamra amul benn chef bu mën buxi bët ba li jamra war a def dans son combat contre lépp luy raam jëm ci penc mi te nar yàq jikko yi wala lépp luy raam jëm ci penc mi te nar a tilimal malaanu lislaam amul benn chef d'état bu am maxaamawu empêché Jamra mu am ci taxawaay kooku juddoogul voilà je tenais à faire ces quelques points là pour egsi ci lii waaw lii nag lan la ñuy wax waaw Jamra da ngeen soxor ñii nga xam ne toogaguñu sax ngeen jóg dama ne chef d'état bu toog cinquante ans ak ku fi toog ñaari fan la jam la yemale ah cinquante ans régime bu fi toog cinquante ans ak régime boo xam ne amagoo sax ñaari fan lañu ñu yemale pourquoi mais parce que dañu leen dénk suñu suñu suñu destin ndax ni ko suñu bàyyi âge Mansour tàmm di waxee le président de la république gardien de la constitution le président la république romb na foofu c'est la clé de voûte des institutions dafa ëmb lépp euh, le le le président du conseil supérieur de la magistrature chef d'état bi la euh, le chef suprême des armées moom la mais on oublie souvent ci constitution bi que le président am na beneen ndombal tànk c'est le protecteur des arts et des lettres et par extension de nos valeurs kon nag kooku ñun bu ñu sukkandikoo ci loolu ñun sénégalais yi fal ko am nañu droit chef d'état bu mel noonu bu poser un nag qui va à contre-courant de nos valeurs ñu yuuxu Jamra dafay yuuxu à visage découvert du ñu nëbbatu ak di def ay interview caché visage découvert lañ koy dénoncé kon nag président bu fi def cinquante ans ak ku fi def ñaari fan la ñu yemale te ñun dañ dañ euh, euh, jóguñu rek def ko on a été da ubbi bunt bi dafa xaw a on a été euh, équilibré bi Diomaye falo sur les cent cinq ONG islamiques du Sénégal Jamra a été la première première ONG def une appréciation encourageante ci premier pas yi Diomaye fay posé te maa ngi koy répété fii Jamra bind na ci Facebook sur tous nos supports def déclaration yónnee ko presse bi ne nii jam euh, euh, euh, Bassirou Diomaye fay démarré ñu ngi ko ciy encouragé premièrement posé na ay actes yu rëy très fort la Jamra yàggoon di xeex depuis le limogeage du général Lamine Cissé Bassirou Diomaye Faye réglé na ko parce que ñun dañu ne ministère de l'intérieur dafa tëddee njaaxanaay kon d'accord ñu di fa teg un civil loo tax bi Ablaye Wade ñëwee dekkalaat na ko daal di fa nommé le général Mamadou Niang mais bi fa Mamadou Niang ñu delloowaat. ci euh, di ko jox un civil alors loolu Diomaye réglé na ko parce que nommé na le général Jean-Baptiste Tine comme ministre de l'intérieur mënees na am njort ne dana yemale parti politique yëpp nome na le général Birame Diop comme ministre des forces armées muy lu cohérent parce que ay militaire militaire moo leen war a yilif kon loolu la ñuy jëkk rafetlu ñu ne Jamra ngi rafetlu ci premier pas yi Diomaye posé loolu financier yi di wax des économies d'échelle dama ci citer benn exemple gouvernement yi fi jaar yëpp chef d'état yi fi jaar yëpp da nga daan gis ministère de la jeunesse avec un gros budget ay milliards ministère des ngan ngandim budget ministère de la culture Diomaye ñëw rajaxe yooyu yëpp fusionné ko il a nommé un ministre de la jeunesse des sports et de la culture Jamra jëkk bind rafet na lool ça nous a permis d'économiser plus de 60 milliards ci loolu ñu dajale ci ministre yi wax nañ ko ñu ne ñaareel ba Jamra rafetlu na taxawaayu président jomay Faye à l'égard des cités religieuses ndax dindi tuuma yu bari ñi daan wax naan faalewul sëriñ si xeexkatu tarixa la jomay def lu rafet ba muy seeti sëñ mun taxaa yëkkatiwul ay mbagg tànku neen la def yéen ñëpp gis ngeen ko ci régio sociaux yi ba mu demee sukkal na sëñ Muntaxa fóon ay loxom sëñ Muntaxa tamit def geste bu rafet daal di jël de haut symbole islamique kurus ak alquran karim jox ko ko jam la rafet na ko jomaay wëlbatiku fa dem Tiwaawan sëñ Babacar Sy Mansour yëkkatiwaat de grands symboles islamiques sajaada ak yeneen i teraanga du plan jox ko ko Jamra def déclaration rafetlu loolu ñu ne ko na nga nii te ni nga ko waxee yow Diomaye noonu la yaay seen président de waaye ñoom sa ay baay lañu te sa ay wasila lañu ñu ne bon au plan international d'habitude chef d'état yi doo ko falu dañuy dem jébbalu ji ca tubaab ba euh, dem dem dem dégg nga ne ko falu naa Diomaye daal di dindi cette routine là ñan la jëkk seeti hors de nos frontières suñu mbokk yi di waa Mauritanie ñu bokk ak ñoom rek frontière ba pare bokk un espace économique parce que exploitation pétrole bi ak gaz bi on est condamné de le faire ensemble ñu la jëkk seeti muy lu pertinent mu jógee di fi rendre visite un autre voisin boo xam ne territorialement ci biir Sénégal la ne muy Gambie Jamra rafetlu ko waaye nag ñu ne première audience de la première personalité internationale kan la Diomaye di recevoir ñu ne mu ngay recevoir ka nga xam ne ba ñuy organiser concours Miss lesbienne en Belgique moo doon le président du jury di Charles Michel ñu ne ah ñu ne non seulement ça Charles Michel mooy kan mooy ka nga xam ne euh, mi structure yu bari comme Jeune Afrique comme UNESCO New York Times CNN a chaque fin d'année ñu créé benn raaya bu ñu tuddee personnalité de ne ci ñi ràññeeku ci wàllu politique wàllu économie Jamra tamit créé na benn depuis 2015 ñu di wax personnalité de l'année ki ñu ko jëkkoon a jox mooy Mame Seydou Ndour qui était le DG de Locritis en raison d'une saisie record de cannabis d'une valeur de 2 milliards Jamra def ko personnalité de l'année 2015 ba ñu fa jógee Assane Dioma Ndiaye ñu def ko personnalité de l'année parce que Pita Wang bi mu ko bëggee dugal ci musiba boobu euh, ne ko danaa la financer sa euh, euh, kii un plaidoyer pour la dépénalisation de l'homosexualité moom moo ko jëkk gàntal ñu def ko personnalité ba ñu fa jógee maître Alioune Badara Ndao Jamra def na ko personnalité l'année Fatoumata Makhtar Ndiaye à titre posthume def nañ ko personnalité l'année 2023 bi ki ñu mujjee def personnalité ne mooy votre consoeur la dynamique Oumy Ndour ci xeex ba muy xeex pour défendre les consommateurs que nous contre la dictature des prix de la Sénélec góoram ñaari tur yi nañ seen bos ñu ngi ko tuddee personnalité médiatique de l'année qui s'est le plus distingué dans la défence de la cause LGBT kan lañ ko jox Charles Michel et enfin kuy Charles Michel mooy ka nga xam ne le premier ministre homosexuel ki a fait son commune out kooku moom kenn jëw coming out mooy nga taxaw ci média yi ne waaw góor jigéen laa c'est mon option c'est mon nangam xam nga dañ ñàkk jom alors premier ministre Luxembourg Xavier Bettel bi nga xam ne ngoroyantoom bi ak faram di góor jigéen comme moom l'architecte belge Gauthier Destene ngoroyantoom bi bu mu bëggee yàgg mu tombeek état européen yu bari di légaliser homosexualité France dal di ko légaliser le 17 mai 2013 alors ñooñu premier Luxembourg ak son far euh, euh, belge Xavier Bettel ñu ne dañu bëgg daganal diggante bi takk sëy bi fan la takkee sëy bi à la mairie du grand duché de Luxembourg kan lañ ko ndeyale Charles Michel waaw ngeen bëgg na ne Jamra du wax <laughs> ngeen ne Jamra du wax bañaa wax Charles Michel xajamal na lu bari lu Bassirou Diomaye Faye doon def te naqari nañ ndax ñun ci ñi doon ndamoo acte fort yi jom ay fay posé si ñi ko jëkk ndamoo ñun ci la ñu bokk. Charles Michel ñëw na tëfli ci xaar ci am nañ droit wax ne neexuñu waaw ngeen bëgg Jamra waaw leen wax lii ci Macky Sall ba nettali naa leen fi ñuy jaar ak ab Diouf ak Abdoulaye Macky Sall kon foofu moom lay amatu fa hmm. alors kon nag nous nous adressons maintenant à notre nouveau président de la République Bassirou Diomaye Faye encouragement yi la Jamra di encouragé duñ ci dindi lu day ni tarfatal ay mi yéene bi Jamra am ci yow pour nga réussir ce sacerdoce duñ ci dindi lu day ni tarfatal ay ni mais on a le droit de vous exhorter à la vigilance ndax xale nga ba ñuy créé Jamra en février 1983 ñetti at rek nga am nañ droit conseiller la Macky Sall ba ñuy créé Jamra en 1983 Macky Sall qui est né en 1964 il n'avait que 22 ans ba ñuy créé Jamra en 1983 Ousmane Sonko qui est né en 1971 na que 9 ans kon am nañu droit conseil la yow mi nga xam ne ñetti at rek nga magee Jamra kon suñu conseil na nga def preuve de la plus extrême vigilance parce que àdduna bi dafa bouleversé wu lobby LGBT yi dañu am yi doole am doole FMI am doole Banque mondiale am doole Union européenne te ñun suñu métier mooy gëstu kii administrateur civil à la retraite kenn daxu ko gëstu ci boobu wàll kazalika soxna Bintu kii Birame Traoré c'est le coordonnateur de de de de la cellule de Jamra de, du département de Koungheul dans dans euh, dans la région de de Kaffrine foofu ca Kaolack kii kan la Alaaji Mbaye Guèye moom moo ñu toogal fii ci Parcelles Assainies ak ak ak Cambérène am na ñu bari ñëw ñu ndax ajuma ji ay si gëstu la ñu dëkk kon ñu ngi koy exhorter à la vigilance te dama ciy citer deux exemples et eh, on naa aura fini ndax euh, heure bi dafa gaaw euh, li tax ma ne ko lobby yi du ay benn benn nit ñëw di jéem a détourner chef d'état yi déedéet dañ leen di yónni ndax ndaw si fi ñëwoon te ma woowoon leen conférence ni dafa bëgg a suñu élection pour tànn benn candidat LGBT pour bu faloo daganal ngóor jigéen kooku taalibe Charles Michel moom mooy chef am alors kon nag ñaari firnde yi mooy e je j'encourage euh, Dame parce que ñun ak moom ñoo àndoon ci xeex boobu mille 2020 UNESCO ñëw fi woon euh, ne daf ñu bëgg a proposer une redynamisation du système éducatif. Mmh. mais fekk deux ans auparavant hmm. en 2018 Jamra ci ndimbalu yàlla jotoon nañu la document confidentiel bi nga xam ne la directrice générale de l'UNESCO madame Audrey Azoulay yónnee woon na ko à tous les états qui bénéficient du concours financier de l'UNESCO hmm. ñun document boobu fanaan nañ ci fanaanaat ci quatre pages la